yi fi nekk Cheikh Mahmoud Muntaxa yàggal ko fi lool te may ko ak wér may ko tawfiq ba mu àggal sëmb yi nga xam ne sémbal na ko yoon wi sémbal na ko diine ji te ñu ànd ko ak moom sunu waxtaanu tey nag ñu ngi ko jëmale ci tomb boo xam ne rek day ndigal lu ñu bàyyi ko ci sëriñ bi mu wax ne nañu yeesal ndigal yi nga xam ne doon na ko joxe ak laabire yi nga xam ne doon na ko joxe laabir yi muy jox mbokki jullit yëpp ak ndigal yi nga xam ne moom lay jox mbokki murit yëpp ci di leen fàttali te fàttali du lu am njariñ wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin fa zakkir in nafaati zikra kon fàttali day lu am njariñ boo xam ne saa bu nit ñi demee ba xaw a yolomal rek ñu delloo siwaat fàttali gi delloo siwaat laabire yi ngir ñu tegwaat ci kaw yoon wi ba mën a jariñu fàttali gi nag mu ngi jëm ci rek ndigal yim digle woon te mosul deñ di ko digle muy rek lii nga xam ne moom lañu yàlla nattoo muy mbas mi nga xam ne moo ñëw tegu ci sunu kaw tegu ci àdduna bépp ñu faj ba jéem koo fajee rek ñaari sabab yi nga xam ne moom la ñu sunu borom tabaraka wa taala digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral lañu ko te ñaar yooyu mooy wakkilu ci yàlla te jël sabab yi nga xam ne ñooy sabab yi feeñ wakkilu ci yàlla nag mooy sukkandiku ci sunu borom ci sab xol ci lépp looy xëcc muy njariñ wala lépp looy jaf jañ mu di lor ci sa mbiri àdduna ak sa mbiri alaaxira yépp nga gëm ci sa xol wóolu ci sa xol ne yàlla dong lañ cey sukkandikoo yàlla dong lañ cey wóolu keneen ku dul yàlla mënu ca mënu munta ci njariñ keneen ku dul yàlla munta daf muntal jañ lor yàlla rek moo mën a jañ moo mën a xëcc kon nañ ko sukkandiku ci moom gëm ko wóolu ko jàpp na moo ñuy xëccal moo ñuy loraat moo ñuy moo ñuy jañal moom tawakkul boobu nag muy wàkkilu boobu day benn xaaj ci gëm yàlla gi nga xam ne juróom benn xaaj la te xaaj bu mujj ba ci la wàkkilu dugg mooy gëm dogal bi nit du gëm mukk lu dul ne dafa gëm juróom benn yooyu ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ci hadiisu Jibril an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axir wa tumina bil qadari charrihi wa xayrihi da ngay gëm yooyu yëpp gëm yàlla gëm malaaka yi gëm téere yi gëm yonent yi gëm alaxira waaye nga gëm ne tam yàlla mooy dogal lépp lu am yàlla la qul la yusibanaa illa ma kataba lana dara du nu jot lu dul lu yàlla dogal ci noonu muy loo xam ne nag sunu borom daf nu koo digal ci aay yu baree baree baree bari bëgg nu sukkandiku ci moom ci lépp lu ñëw yu bañ a sukkandiku ci dara te ko ci moom yàlla képp wa ala allahi fa tawakkal fal yatawakkali l muminuun wa lillahi xaybu samawati wal ard wa ilayhi yarjiu l amru kullu faabudhu wa tawakkal alayh wa tawakkal ala allah wa kafa billahi wakila yooyu yëpp ay aaya yoo xam ne day digal nit ñi digal lu leer lu wér ci ñu wakkilu ci yàlla bàyyee ko seen bopp te gëm ko ci seen xol te doyloo ko ndax doy na waaye addis yonent bi buñ ci ñëwee sallallahu alayhi wa sallam moom it yu bari lool la ci wax waaye dañ koy jukki benn rek mu ne law tawakkaltum ala allahi xaqa tawakkulihi la razaqakum kama yarsuqu tayru taxudu ximaasan wa taxudu wa tarawxu bitaanan su ngeen wakkilu woon ci yàlla dëgg dëgg dëgg wakkilu kon dana leen wërsëgal ni muy wërsëgalee picc bi nga xam ne day xëy jugee ci am tàggam dara la yaakaarut xamut fu jëm waaye mu xëy rek dem ba muy dem biir ba dara nekku ca waaye mu dem yàlla wërsëgal wërsëgal ko mu lekk ba suur duy biiram ba mu fees mu dellu si ci njabootam ngir mën leen caa leel kon yàlla mi wërsëgal picc moomu yàlla moomu moo jar a te noonu lañuy ñuy ci yàlla danañ ci desiwaat sëriñ bi tam wax ñu ko fu baree baree bari ci téeréem yi baree bari rek muy soññ nit ñi ci ñu bàyyee seen bopp yàlla te wakkilu ci yàlla wa kullama asaabanaa lam yakuni yuridu an yuxti'anaa fi zamani wa kulluma wa kulluma axta'anaa lam yakuni yuridu an yusiibanaa min mihani fa thiq bihi summa alayhi ittakilaa wa anhu da tazabzuban wa wajala Cheikhul Xadim radiyallaahu taala anhu leeral nu ko foofu li li alquran leeral ne wa maa asaab lu leen jot rek ci sunu borom tabaraka wa taala la jógee mu ne lu leen jot kenn munta te mu jot leen ku dul yàlla lu yàlla nar mu jot leen du leen mooy mukk waaye lu yàlla narut mu jot leen du leen jot mukk kon nag wakkiilu ci yàlla moomu te bàyyi euh, euh, euh, jaawale gi ak bàyyi sikki sàkk bi te wakkiilu ci yàlla dong jox ko sa mbir yëpp ay yooyu yëpp ak addis yooyu ak waxi sëriñ bi yooyu yëpp li muy tegtale mooy digle wakkiilu rek ci yàlla tabaaraka wa taala te dëgërloo ko ci mépp mbir waaye loolu nit daqoontewut ak ak wakilu loolu sax mooy wakilu wakilu daqoontewut ak jël sabab yi nga xam ne sabab yu feeñ la ni ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxee ci addis boobu ñu jàngoon léegi ci picc mi taxdu ximaasan wa bi bitaanan picc mi kat bi mu bëggee lekk toogul ci am tàggam rek ne yàlla dana ma leel waaye dafa xëy dem naaw dem wuti fu mu lekkee ji wuti fu fu dara ne dem ba yàlla wërsëgal ko foofa mu mu lekk ba suur delsi lekkal ay ay njabootam waaye dafa xëy naaw dem xëyul rek toog ci mu tàggam naan yàlla na dana ma jox lu ma lekk yonent bi sallallahu alayhi gën na koo leeral feneen ci beneen hadis boo xam ne ba sàmm ba dikkee yor gëleemam ne ko dama koy dama koy bàyyi mu dem ma wakkilu ci yàlla wala dama koy yeew te wakkilu ci yàlla yonent bi ne ko aqilha wa tawakkal yeewal sa gëleem ba noppi nag wakkilu ci yàlla ñaar yooyu yëpp aqilha mooy mooy nga jël sabab yi wa tawakkal mooy nga wakkilu ci yàlla aqilha yeew ko ba mu dëgër loolu sabab la sababu zahir la wa tawakkal mooy nga wakkilu ci yàlla nag xam ne yàlla moo ko fi bàyyi ndax mën nga ko yeew ba noppi mu dem kon aqilha wa tawakkal boole na eh, wakkilu ak eh, lu ci sababi sunu borom tabaraka wa taala loolu gën naa leer Seexul Xadim koy faral di defee rek ci lu ne lu sunu borom wax yonent bi wax ko sallallahu alayhi dana ko gën a leeral waalam bi an al kasba laa yunaafi tawakkulan laa takusa idlaafi bu leen foog ne mukk jël ci asbaab yi di faggu dàqonte naag tawakkul maanaam jël asbaab yi dem wuti ci li yàlla wunda fantashiru fil ardi wabtaqu min fadlillah ngeen dem wuti ci wërsëgu yàlla wi dàqonte wut ak tawakkul toog rek ne damay wakkilu ci yàlla loolu dàqonte wut wa tawakkul ak axz bi wala wakkilu ak jël ci sabab yi dàqonte wut ak wakkilu mu ne lan mooy wakkilu mu ne xasbuka min tawakkulin allaa tara mujriya risqika siwa rabbil wara wakkilu mooy na la doy rek yow nga xam ne kenn du maye ku dul yàlla nga xam ne kenn du maye ku dul yàlla wut du tax a am wut du tax a am waaye nag yàlla mooy maye waaye yow li ñu dugal mooy nga nga wuti te te gëm ne yàlla moo lay may wal afdalul jamu li haazayni maa wa in ata bihi xilaafun sumia maanaam dajaleel ñaar yëpp nag wakiilul ci yàlla ba noppi nag dem wuti wala wutil ba noppi nag dem wakiilu ci yàlla li annahu ndax yi moom yàlla kat rabata bil asbaabi afaalahu daman ala sawaabi sabab yi kat ci la ci la ci la ci la teg jëf yi jëfam yi muy jëf maanaam li muy li wakkilu gi ngay yàkkilu ci moom lam la cay defal da koo aj ci ay sabab da ngay dem sabab lu ji mu jaar ca sabab ba defal la la nga bëgg wa jaala al asbaaba xiina asalat abwaaba fialihi bi ihkaamin sabat yàlla moo def sabab yi muy bunti jëfam yàlla bu bëggee def dara day bunt buntu bu jaar ba def ko bunt ba muy jaar ba def ko nag mooy nga wakkilu te jëf sabab yi ca sabab ya lay jaar defal la la nga maanaam faju du tax a waaye yàllaay tax a yàllaay waaye yàlla nag lim wéralam googee ma ngi koy jaar ci sabablu muy nga faju nag door a mën a wér fa kullu man yatlubu minhu fi'la bi min gayri baabihi wa yarjul wasla faqad ata jahran bi suu il adabi maa ilahi wa faqdil arabi képp koo xam ne jóg nga di sàkku ci yàlla dara te jaaroo ko ci buntam ba buntam ba mooy sàkku sabab yi jaar ci sabab yi jaaroo ca xanaa bëgg rek àgg àgg am li nga bëgg te jaaroo ci sabab yi nee na ñaawal nga ay teggin sa diggante suñu borom tabaraka wa taala ñaawal nga ay teggin te yàlla ñaawal sa ay teggin diggante moom la ngay wut doo ko am ma ay ilaahi yi wa faqdil arabi la ngay wut doo ko am képp koo xam ne ñaawal nga sa teggin te sa borom la ngay wut doo ko am te ñaawal teggin te diggante borom mooy ngay wut ci moom dara te jaaroo ko ca sabab ya ngay wut ci moom dara te jaaroo ko ca sabab ya kon mu ne la nag fa zahiran takassa bi imtisaala wa batinan istaslim itikaala yow ci baatin bi ci zahir si demal rek wuti demal wuti ci zahir jàpp na dañ la digal wuti dañ la ko digal waaye wa batinan gëmal ci sa xol nag ne yàlla rek mooy joxe istaslim itikaala jébbal la sa bopp yàlla xam ne wuti du tax am waaye wuti mooy ndigal li ci wuti la la yàlla jaaree ba defal la ak am am am am wa annahu musabbibul bi fasiq bihi dahra waqif bilbaabi yàlla mooy mooy musabbibul asbaab mooy sabab yi yàlla koy amal kon dëgëraloo yàlla waaye nag demal taxaw ci buntu ba demal taxaw ci buntu ba fëgg nag boo fëggee bu yàggee danañ la ubbil kon loolu lépp li muy wane rek mooy boole lu ak sabablu jël ci sabab yi loolu mooy mooy li nga xam ne mooy ñaari tànk yi ab julit war a doxee daal di am istiqaama lil jamci bayna alchari wal xaqiqa fa huwa istiqaamatu lfata xaqiqa istiqaama li nga xam ne mooy bañ ëpp bañ a yées mooy boole wakiilu ak jël ci sabab yi mooy wakiilu ak jël ci sabab yi mooy istiqaama bi nga xam ne fu ne digal na suñu borom tabaraka wa taala digal nañu ko yonent bi digal nu ko sëñ Tuubaa digal nu ko fu nekk biir tegtal yooyu nga xam ne alquran indi na ko sunna andi na ko waxi sëriñ bi indi na ko day tegtale rek war guñ war a boole ñaar yooyu ndax sëriñ Tuubaa nee na mooy istiqaama te istiqaama mooy bañ ëpp bañ a yées bañ ëpp bañ a yées mooy boole wakkilu ci yàlla ak jël ci saba yi wakkilu ci yàlla googu jël ci sabab bi nag moom la sëriñ bi digal toujours saa bu nekk moom la digal wakkil ko ci yàlla mooy dañuy jigal ñuy ñaan dinu digal ñuy tuub di jégalu yàlla di bari luñ koy tudd loolu Cheikh mun Mountakha digle woon ñu def ko ci ay jamono ci jumaa ji jàng fi alxuraan jàng xasida ak ci réew mi yëpp ak ci eh, adduna bi yëpp jàng alquran jàng xasida ngir dellu ci yàlla tuubal ko jégalu ko ngir mu fajal nu sunuy sunuy aajo waaye ba mu defee loolu ba noppi dafa digle nag ñu ñu jël sabab yi nga xam ne mooy sabab zahir yi nga xam ne ñi yàlla dénk xam-xam ci wàll gii ñu ngi koy wax ñu war leen cee diglu war a jëfee lañ cey lañ cey digle ndax fasalu ahla dikr in kuntum laa taalamuun sunu borom moo nu ko digal kon li ñuy def ci wakkiilu ndigalul yàlla la waaye li ñuy def ci jël ci sabab yi nga xam ne ñooñ xam-xam ñoo ko indi moom it ndigalul yàlla la kon ku bëgg a def ndigal yàlla da ngay boole ñaar yëpp waaye mënoo jël bi bàyyi bii boo defee ne damay wakkiilu rek te duma jël ci sabab yi wakkiilu boo jëlee ci sabab yi ne damay wakkilu wakki damay damay bàyyi wakkilu wakkilu woo waaye boole tawakkul wala as axsu bil asbaab ñaari ngay boole ñu doon tuddee ak tawakkul boo jëlul boo wakkiluwul yow tawa boo boo wakkiluwul te jëlul ci sabab yi loolu tawaakul lañ koy tuddee tawaakul ak tawakkul benn alif rek mu leen teqale ki yàccaaral deful dara ak ki nga xam ne daa jóg jël sabab yi euh, wakkilu ci yàlla ñaar ñooñu benn alif googu rek moo leen teqale te kii daa def luñ tere waaye kii daa def lu ñu lu ñu digle loolu nag mooy kon mooy waral ne kon sëriñ bi moom loolu la ñuy digal te li ci gën am solo mooy li muy digle moom lay def ba ba ñu fi tàmbulee ba léegi naka jekk mu di ñu digal ñuy jàng alxuraan jàng xasida yi di tuub di jégglu waaye naka jekk yi ñu di ko jëf mu gis muy jëfandikoo sabab yi nga xam ne moom lañ xam-xam andi mu di ko jëfandikoo ci jëmmi boppam di ko jëfandikoo ci njabootam ak ñi ko wër ñëpp ñu di ko jëfandikoo kon nun ñun ñi ay taalibe dara wurunu lu may def loolu loolu rek mooy ndigalu yàlla mooy ndigalu yonent bi mooy ndigalu Serigne Touba muy ndigalal kii ko fi nekkal di Cheikh Mouhamadou Mountakha te loolu it yàgg na fi ndax boroom xam-xam yi euh, euh, yàgg nañoo wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax firra minal majzumi firaaraka minal asad dawal dawal lu feebar buy wàllaate daw ko ni ngay dawee gaynde nee na dawee ko noonu te yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy sayyidul mutawakkilin ñi yëpp mooy seen kilifa waaye loolu la wax ne dawal dawal feebar bi wàlle ni ngay dawee gaynde te mënoon na ne rek man damay wakkilu ci yàlla rek yàlla dana ma ci musal waaye dafa ne daw ko ni ngay dawee gaynde ak lépp luy wàllaate rek noonu lañ koy dawee mu del waxaat ne isa waqaa taawunu isa a bi ardin wa antum biha fala taxruju minha wa ida waqaa bi ardin wa lastum biha fala tahbitu alayha saa boo xamee ne mbas dugg na ci am réew mu mën a doon bu ngeen nekkee ci réew ma bu leen ko génn bu ngeen fa nekkut bu leen fa dugg yéen ñu nekk ci biir bu leen génn dem fenn ndax da ngeen koy tasaare waaye yéen ña fa dëkkutoon it bu leen fa dem ndax dangeen ko fa yëlee kon loolu leer nañ la ci loo xam ne li ñuy def ci ndigalul yàlla lañ ko teg li ñuy def ci ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko teg sun euh, Seydina Omar bi nga xam ne dafa mun faqih la ci ci wàllu hadis dafa daf doon dem saam ba mu demee saam ñu wax ko ne ah saam kat dafa am benn mbas mu fa wàcc mu daal di dellu siwaat Madina daal di wàññi ko abu ubayda ibnul jarrah daal ne ko ah ndax yow da daw dogalu yàlla ndax yow da ngay daw dogalu yàlla man dem saam googu ngay bañ a dem xanaa dogalu yàlla rek diwu fa da koy daw mu ne ko yaa aba ubayda maanaam lii nga wax de bu ko keneen waxoon ay bu ko keneen waxoon maanaam wane ne boo ko keneen waxoon danaa ko dana am lu ma ko teg waaye yow mi ko wax xam naa xam naa la waaye mu ne ko naam waaw waaw na firru min qadarillahi ila qadarillah dañuy daw dogalu yàlla jëm ci dogalu yàlla feebar wiir gi nekk Madina dogalu yàlla la kon dama daw dogalu yàlla jëm ci dogalu yàlla len lu ci nekk dogalu yàlla loolu sëriñ sëriñ bi wax loolu waxuwa firaarun yaa axi min qadari rabbil wara li mislihi bil xasari daw dogalu yàlla jëm ci dogalu yàlla loo nekk rek dogalu yàlla loo nekk rek dogalu dogalu yàlla la kon ni ko Seydina Omar moom ku amoon ak dégg la ci loolu addis yu mel noonu da ci amoon ak dégg am na beneen addis bu bu ñëw boo xam ne al allati yalqa xabbahu fi l ardi wa yatawakkal ala allah nee na kii wakkiilu dëgg dëgg dëgg mooy baykat bi dem fab ab jiwam mu mu taw ba tooy mu fab jiwam yépp suul ko ci suuf si nag dem wakkilu ci yàlla waaye ka wakkilu du doon koo xam ne day taw ba tooy nga taxaw rek yor saw jiw ne yàlla dana ma saxal déedéet da ngay ji ci suuf si dem nag wakkilu ci yàlla loolu mooy wakkilu dëgg dëgg kon boole wakkilu ak ak jël ci asbaab yi yooyu yëpp nag kon wane na ne sëriñ bi li muy digle di ko dañu ci soññ suñu njariñal bopp ci nekk waaye ndigalal yàllaa ci nekk loo xam ne suñ ko defoon te amuñ ci njariñ sax yool bañ cay amee lañ cay sàkku suñ ko defoon ba noppi ndax yàlla du ne rek dangay ngay sabab lu mu jox la mu daal lay jox sabab bi du ne du ne sabab loo mooy tax a wér yàllaay joxe wér te mën ngaa sabab lu ba noppi doo wér waaye bu boobaa nag yow def nga digalul yàlla subhanahu tabaraka wa taala te liñ la digal nag mooy def ndigalul yàlla kon ñëpp nañ delluwaat ci loolu ñëpp nañ fabaat loolu def ko ni ndigalul yàlla bu ñu koy def ñu di ko def te di ci kas sàkku sàkku ab yool buñ koy def ñu di ko def ngir ndigalal sëriñ bi di ci sàkku ab yool te di ko def ngir sunu bopp yi ndax sunu njëriñal adduna moo ci nekk ak sunu njëriñal alaxira moo ci moo ci nekk ah, mu mu des nag loo xam ne nag saa bu nekk rek nañ koy def ci sunu xel ndax saa bu ñu sëriñ bi digalee ñu jàng ay kaamil wala ñu jàng ay xasida ñu booloo def ko ci réew mi ak ci dëkk bi yëpp ñun ñëpp def ko buñ ca noppee dañuy mel ni loolu rek moo doonoon ndigal li te loolu ñu doon def di ñaan ak di wakkiilu ak di jéggulu ak yëpp daa war a nekk loo xam ne day continuer ak ñun du taxale ko ñun kenn ku nekk boo delloo yow ci sa bopp nga di ko defal sa bopp te wéy ca nag xam ne lii kat nga xam ne mooy am nattu nattu la boo xam ne yàllaa ñu ko teg te dafa am sabab bu tax yàlla teg ñu ko te duñu duñu duñu du ko teggi ci ñun nukk lu dañoo jaar ci asbaab yi nga xam ne mooy tax ñu teggi ko ci ñun ndax saa boo gisee nattu nattu boo gis rek ak musiba moo gis rek ak balaa boo gis la tax yàlla teg ko nit ñi mooy bari guñ ko bari mooy ko ak tasaaro gum tasaaro waxuma la nag ñu di ko biral buñ demee ba bari mooy yàlla yi mooy yàlla bari lool tasaaro lool waaye ñu di ko biral nag di ko feeñal ni amee ci jamono yii yàlla day wàcc ay ay nattoom wàcc ay yëfam yoo xam ne ngir ñu waat ci moom ngir ñu euh, euh, muslu ko ngir ñu ñaan ko zahara al fasadu fi l barri wal bahr bima kasabat aydi nnaas li yudiqahum baad alladi amilu laallahum yarjiun suñu borom tabaraka wa taala nee na lu leen jot ci kaw suuf si rek xam leen ne seen loxo yi bopp yi yéen a ko fàggu musiba mu am rek yéen a ko yéen a ko def yéen li tax mat mat ma leen ko teg nag mooy dama bëgg ngeen dellu si ci man dama leen di mosal lenn ca rek looloo la la ma leen war a mosal sax lépp mosalu ma leen ko waaye lenn ca laa leen mosal rek ngir ngeen dellu dellu si ci man tuubal ma jéglu ma dellu waxaat ne wa maa asaabakum min musibatin fa mimmaa kasabat aydiikum wa ya'fu fu kathir lu leen jot rek lu leen mën a jot rek bu leen ko jiiñ kenn bu leen ko tuumaal kenn waaye tuumaal leen seen bopp loolu lu mat a seetlu la ndax saa bu yu mel nii amee rek dañuy tuumaal keneen di tuumaal keneen waaye da ngay tuumaal sa bopp yow ba noppi yow lu ci sa wàll yow loo def ba lii ñëw bala ngaa tuumaal keneen nga tuumaal sa bopp ba kon tuumaal sa bopp mooy wa ma asabakum min musibatin fa bi ma kasabat aydikum wa yaafu an kathir te yàlla dañoo dañoo ruus sax waaye mënoon naa weesu foofu dañoo ruus da daa waaye mënoon naa weesu musibe yi nga xam ne moom lay wàccee ci suñu kaw kon xam ne bari mooy yàlla yi ak tasaaroo gum tasaaroo rawatina biral guñ koy biral nag ci anam yu bari ak ci façon yu bari moo bokk na ci li nga xam ne waral moo waral yàlla di wàccee musibe yi ak balaa yi am na hadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax mu gën a leeral loolu yaa masharal muhajirin eh, xamsatun idabtulitum bihinna wa audu billahi an tudrikuhunna lam tazharil faaxishatu fi qawmin qattu xatta yuclinu biha illa fasha fihum wa wal awjaa nee na njaaloo fu mu am fu mu am feeñ fa ñu fésal ko ak mooy yàlla yooyu nga xam ne moom moom moom moo xew ci jamono fu mu feeñ feeñ ci fés ko yàlla dana wàcce ci yéen ay mbas ak i jàngoro yoo xam ne seeni aslaaf seen ñeneen seen i maam musuñ koo xam loolu nag wane na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla dong nga ko yónni ndax lool ba mu koy wax lii lépp amagut te ku ne xam na ne jàngoro yii am léegi sunuy maam musu koo xam sunuy baay musu koo xam waaye nun ni nga koy gis di ko xam te la ko waral nee na mooy mooy yàlla gu tasaaroo ñu di ko biral di ko di ko di ko di ko di ko di ko fësal loolu nag kon ñun ñëpp war nañ ko wattandiku te delluwaat ci walla di tuubal yàlla jéggulu yàlla di euh, euh, delluwaat ci sunu borom tabaraka wa taala ngir mu teggal nu lépp a fa may yujibul mutarra ida daa wa fa suu wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala sunu borom tabaraka wa taala nee na ñaan leen ma may leen kon toujours nañ koy tàllal suñuy loxo di ko ñaan waaye nag nuy tawassul ci bàyyi mooy yàlla yi tey def topp yàlla yi ut addu'a u muxul ibada ñaan mooy muxuk ibaada mooy mooy mooy moom moom mu gën a am solo ci jaamu yàlla addu'a u silaaxul mu'min du'a mooy mooy ngànnaayal jullit sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu waxaat ko ne isi du'a yanfa'u maytan fil qubur wa yanfa'u al hayya wa yujibul ujur kon nag nan sax ci ñaari tànk yooyu di wakkilu ci sunu borom jox ko suñu bopp waaye di jël ci sabab yi nga xam ne moom la borom xam-xam yi indi te sëñ bi digle ko ñu di ko def ni mu ko digle te sàkku ca ab yool balañ caa sàkku leneen lu dul lool asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu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 أشهد أن لا الحمد لله حمد الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وأشكره شكر الذين صدقوا فلا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وأشهد أنه الله الذي خلق وسوى xalqihi sirra wan najwa yaclamu sirrakum wa jahrakum wa yaclamu ma taksibuun ixtaara nabiyana wa sayyidana muhammadan wastafaa wa bishafaacati ardaa wa lilmaqaami almahmuudi irtadaa الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحابه الأعلام الذين آمنوا به وعزر وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا واستعملوا جوارحكم في المحافظة على ما جاء به نبيكم وتمسكوا من خوف الله والرجاء له بالمعتصم الأقوى in kuntum iyaahu taabudun i'lamu anna allaha shadidul iqaabi wa anna allaha ghafurur rahim fa husulul mu'ammali wal murtaja innama huwa fil jam'i bayna al khawfi war raja allahumma aminna min khawfatina ولا تخيب فيك رجاءنا وأعطنا سؤلنا فقد أعطيتنا بمنك الإيمان من قبل أن نسألك ونعرف أن فيه رضاك نسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله wa yattabiu ridwanahu wa yajtanibu suxtahu amin الحمد لله الذي امر عباده بالتقوى وصالح العمل ووفق من شاء واضل وخذل والصلاه والسلام على سيدنا محمد داعي الرشد والفلاح واصحابه الفائزين بغايه الهدى والصلاح أما بعد فيا عباد الله في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات ومن أسفق من النار لها عن السحوات ومن ترقب الموت صبر على اللذات ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات ومن أراد النجاة من الأزمات والوصول لأهل المراتب وأشرف الدرجات فليكثر من الصلاة والتسليم على ملاذ الورى وشفيع المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات واجعلنا يا مولانا من المرحومين ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا احدا من الاشقياء المحرومين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين امين allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaah qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين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 Allah assalaamu aleykum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 bijaahi man haajara alqaa'ilu ilayna li ixyaai sunnatihi sallallahu taala alayhi wa sallam audu bi kalimaati llahi taammaati min charri maa xalaq audu bi kalimaati llahi taammaati min charri maa xalaq audu bi kalimaati llahi taammaati min charri maa xalaq wala xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-aziim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 لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم ومآب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون rabbi adxilni mudxala sidqin wa axrijni muxraja sidqin waj'al li min ladunka sultaanan nasiira rabbi ja'al haadha al-balada aaminan wajnubnii wa baniya an na'buda al-asnaam رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا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 rabbi ij'alni muqiima salaati wa min durriyyati rabbana wa taqabbal du'aa rabbana ighfir lii wa liwaalidayya wa lilmu'miniina yawma yaquumul hisaab yaa Allaahu yaa rabb innaka qulta wa qawlukal haqqu sidqun ud'uunii astajib lakum wa qulta aydan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 وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم